ginaaw bu nu santaate sunu borom subhanahu wa taala julli ci xayri xalqihi sayidina muhammad salallahu alayhi wa sallam njukkal seexuna si ahmad bamba xaadimu rasul ñaanal xalifaam bi si amadul muntaqa sunu borom yàggal ko fi loolu te wéral ko lañ koy ñaanale sëriñ Cheikh Jëmbu Fall waaye noonu lañ koy ñaanale jullit yëpp ak taalibe yëpp di amaat mbégte ci seen ñeenteelu numéro fas yéene béglante ak yéen eh, ci safar macha allah di jungante ak yéen ci émission bu am solo bi macha allah ngir bëgg nu ñëpp nu bokk dund Sëriñ Tuubaa waaye jariñu ci moom mbokk yi xam ngeen ni noonu ma leen ko waxe woon Sëriñ Tuubaa bi mu xëyee Mbàkke Bari Jolof di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru diggu gàmmu tolloog junni ak ñett téeméer ak ñett ci gàddaay Yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam tolloog 10 août 1895 xam ngeen ni ci la jaar jeewal jaar kokki jaar Louga door a dem nag fële nga xam ne mooy Ndar Ndar am na fa weer ak juróom-ñetti fan ñu ni weer ak fukki fan door a faa jóge nag dem fee nga xamante ni mooy Ndakaaru am fa ñetti fan door faa jóge nag daal di ci liggéey géej gi mbokk yi ni ma leen wax woon léegi barab bu tàng la woon barab bu mett la woon barab la boo xam ni yàlla toroxal na fa tubaab noonu ko seen tubaab waxe woon aya zamin ni laa ma inda jéewali iblisa isnaadaytuhu bi yaawali waaye illa lazi maxaaliqa u jéewali lahu nidaa al muqinan bi yaawali ak billaahi faaraxtu nasaara jéewali wa gayrihi qat an bilaa tanawul mbokk yi bayit mujj bii daanaka mën naa wone lu bari ci xam nga koo xam ne say noonu dañu ne yow tay jii lañ dajeeg yow tay lañ la jàpp nga giñ ci yàlla billaahi lool billaahi baatu billaahi la Sëriñ Tuubaa jëfandikoo billaahi giñ naa ci yàlla ne faaraxtu taqale na man nasaaraa nasaraan yi jeewali fa jeewal te ñoom jeewal lañ ñuy jàpp ko yóbbu kon sëñ bi ko yóbbu mooy lan waxal ñaar moo ko yóbbu sababu xëy ba te an an anaana minhu jaaha wala ko yóbbu woon dëkk nee na nee na nee waaye li ma tax a mooy ràmm sama xeet bi waaye liggéeyal xaadim njool màkka muy rasulullahi ci lu sax loola nag moo fi indi màggal moo tax ba ëddunay tukki màggal gi di am ndax daa bokk ci liggéeyal suñu tuwaay yi nga xam ne day sax faw ba ba ba ilaa euh, mbokk yi mu nekk jeewal tubaab yi ni ko ñun këyit bi ñu am mooy doo fi yendu sëñ tubaab yi leen amaguma ndigalul bañ fanaan fa la yendu fanaan doo faa jóge ba mu jógee jeewal la dem kokki jóge kokki dem Louga ba mu jógee Louga dem Ndar xam nga booba dañoo wax ni euh, gouverneur bu Sénégal boobu mooy Merlin commandant bu Louga boobu mooy Leclerc booba ñoom ñoo fi nekk ci ñi nga xamante ni ñoo yor wàllu wàllu wàllu gouvernement Sénégal di nit ñu doy waar ñoo xam ni maanaam yàgg nañoo doon kéemaanu suñu borom ci ci ci ci ci wàllu àll ci ci ci wàllu euh, ndoom ak adduna euh, gis ni moom Cheikhul Khadim moom Seexul bi mu nekkee Ndar barab la xam ni barab xam ni euh, barab boobu Sëñ Tuubaa yàgg na fa waaye lu ne xew na tubaab yi téye li tax lu bari may wax ni moom Seexul Xadiim dafa nuróog yonante bi sallallahu taala alayhi wa sallam ci lépp yonent bi bu mu jógee Màkka dem Madina alxuraan moonu wax ni dañ doon xalaat ci moom ban dajee ñu ni waaw kii comme dafay woote ay diine ju bees te li muy woote fi la fekkal maamam yi bëgg bëgg leen cee jëlee ñun nañ doon nañ leen a na ko wax de ñii ni nañ ko rey ñii ni nañ ko tëj ñii ni nañ ko génne Sëñ Tuubaa bi mu jógee jeewal dem kokki dem Louga dem ba dem Ndar am fa weer ak nanga ak juróom-ñetti fan dajale waaw nag tubaab bi dañoo ni ko rey ñu ne nañ ko tëj ñu ne nañ ko exilé mooy ah, gi day ndax mbooloo moo ëpp ñii ni nañ ko tëj ñu ne boo ko tëjee fu ñu ne nañ ko génne réew ñu ne loolu mënuñu ko def te sabab amul ñu ne mboolem li tàmbalee euh, Afrique Afrique de l'Ouest gépp nanu daje ku fi tuddoo ab sëriñ ñu wor su ko defee buñ leen woowee am luñ leen sant wóor na ma ne moom du ko nangu su ko nanguwul nag ñu am lay mën ko yóbbu mooy 84 maanaam bi ñuy dégg waaye bokk ñoom Sëriñ bis buñ leen woo Sëriñ bi ñu koy woo kër Ahmed Khoureyssi la jógee fa la xëy ñëw biro Ndar signé ba muy signé seet moom Seexul Xadiim daal di wax ni kayit guñ mës a bind aw fen ak xel ma bu ma si bind fenn nañ ko ko jox mu bind ci bind ko lu wallaahu ahad na ñaar rakk yoo xam ni rakk bu njëkk bi Faatiha ak Baqara la tari rakkam ñaar mu fa na 45 minutes am na door si ne ba mu si nee rek dañ ñu nañ ko exilé nañ ko génne jële ko fa bañ ko fa jëlee Ahmed Khuree si la woon ak kasida asiru maal abraari fii na asiru wa sanama daa anni hunaaka ni ko xasida gii mooy sama seere maa yow damay dem damay dellu si waat xoolal foofu li muy wax asiru maal abraari fii na asiru wa sanama daa anni hunaaka asiru masiri maal axyaar lillahi billahi nga xam ni kon moom bi muy dem dañoo jàppandi dañ ko yóbbu waaye li ko tax a jóg mooy noonu sëñ Tuubaa jóge fa ñëw Ndakaaru nee na ci gaal gi mu gi mu dugg ñëw Ndakaaru nee koor la indaale koor gi mu indaale nee na ko nee dafa dem ba war a dog am ku ko ne nit mel ne neex naa noppaloo sëñ Tuubaa nee na bu ma doon koy noppal ma jàpp ne ma fa war a noppaloo waaye nee na boobu ba mu fa duggee ba mu ne tekk tànkam wala iyaasu billaahi taala loolu suñu loolu ñun mënuñu ko a attanuñu ko dafa metti lool waaye li lay wan mooy dem na ba Maam Musaa Ka wax ni nee na keroog mënta sujjóot ngir tànkam néeg boo xam ne xat gi àgg na ci ak rab yi ñu ci samp boo doon julli sax mënoo sujjóot waaye nee na keroog Jibril Mikaayil ko saa Israafil ñoom ñëpp ñëw nañ fa ngir bëggante ji néeg waaye nee keroog gis na sunu maam mu ni ko ñaxta ko loolu yi daal nee keroog gis na fa rasulullah mu déy ko loolu kenn du ko xam bi dee keroog yonent bi da ko ne xalamal saxaaba bu tudd am satu li xitaab mooy ñoom liñ doon daj ci lislaam tey mu ko ne moom keroog bu noonu oh, lislaam day fay Sëñ Tuubaa te moo waxam waxam ja gàdd ko yar ko moo tax nga dégg muy wax ni su ma fàttalikoo sama ñaari guddi Dakar sama xel day dem ci jihaad dakartu dalika almabita wa dalika al wa sabuta tarab ila aljihaadi bil armaahi nafsi walakin sabba an ilmaahi waaye Cheikh Mamadou Muntaqa mii fi nekk borom Tuubaa yàlla na fi yàgg loolu tëwee keroog bi muy teg première pierre Masaalikul Jinaan wax naqar bu si amaan keroog bëgg na tey lu kon loola sëñ Tuubaa yàlla fay na ko ci jumaay Masaalikul bi loolu amee seen Tuubaa am fi 18 septembre 19 septembre 20 septembre 21 septembre mu sóobu liggéey bi diggante bu gàtt la dox ndigalul yàlla dikk mu julli mu julli ci géej gi Conakry la gaal ga teeri diggante bi way na ay xasida yu bare bare am na xasida boo xam ne Sëriñ Alaaji Mbàkke moo nettali ni bay woowu bi mu koy wax ci aw dund la ko wax ci biir géej gi waaye nee na ba mu ko waxee ba pare yonent bi da ko ni xasida bii may naa la mooy muqaddimatul am baax suba ak ngoon nu koy jàng fee nga xam ne mooy a dem fële nga xamante boole ko nag ak mboolem li nga xamante ne nag mooy woote màggal gi incha allahu taala mbokk yi di mooy seen mbégteem 18 safar nii lañ ko fas yéene ànd ak yéen di ko gungenteeg yéen ci màggal bu tedd bi 18 safar ashin muhjamatan wal kaaf wa raaw